yow jàmp yàlla bi taqdiiru bi maxna sawxil maqaadiira dogalu yàlla ba nga xam ne dogal na ko waaye daa nekk ci maanaam mu jiital ko ca xamam mu jiital ko cay jëfam moom yàlla xam ko moom dong dogal ko moom dong di ommat dogal booba nag mën naa am mu dem milliards at mu doog a feeñ moo xam na ma ko neexee moom sunu boroom waaye daal moo dogal loola xam ko ommat ko ilaal mawaaqiiti jëme ko ca waxtu wa nga xam ne fa la bëgg bindeef yi xame ko fa bindeef yi ko faa xame ñun doomu aadama nangam day am nu doog ko xam waaye fekk yàlla moom xamoon na ko ay milliards yi milliards at lu jiitu am ngay am wallaahu yàlla taxalaa tey aji kowe sëriñ Tuubaa na moom sunu borom wax na ne xalaxal xayra moo bind aw yiw waaye aw yiw du mbindeef moo xam ne day dogal mbaa muy ñàkk dogal moom yiw du yàlla joo xam ne day dogal mbaa muy ñàkk dogal moom yiw yàlla ko bind wasarra yàlla moo bind aw ay aw ay du yàlla joo xam ne mooy bind dara mbaa mu doon mbindeef moo xam ne day bind dara aw yiw ak aw ay yaari jaame yàlla lañu yoo xam ne sunu borom moo waaye nag bu leen bindee ba noppi majihahu mu jubale leen ilaal mawaaqiiti ca waxtu wa nga xamee ne waxtu woowee la koy feeñal doomu aadama dog koo koo gis fekk yàlla bindoon na ko xamoon na ko ay milliards at lu jiitu doomu aadama doog koo xam doog koo gis yàlla nag mooy omma dogal booba jëmale ko ci doomu aadama doomu aadama doog koo gis dog koo xam walaahu yàlla taxala yàlla may aju kawe xalaxal xayra mooy bind lépp luy xeetu yiw wasarra yàlla mooy bind lépp luy xeetu ay moo koy dogal xam ko sañ ko waxadara dogal boobu nag ma jiixawoo da koy ommat jëmale ko ca ilaal abdi ca jaam ba fii aw xaatin ca waxtu ya ko neex mu feeñal ko ca jaam ba waaye xamoon na ko lu jiitu dogaloon na ko lu jiitu ay milliards yi milliards waaye nag bu ko indee ca waxtu wu mu bëgg nekkitee fi muy jaam yàlla yi doo koo xam la koy feeñal ca jaamam ba ñépp doo koo xam maxloo xam googa daal bala koo nekkitee fa xam rek. fekk na yàlla xamoon na ko bu yàgg doog koo feeñal ca jaam ña jaam ña doog koo xam intaha leeral googu nag mat na sëkk te jeex na takk ci téere bii yow miy jàng téere bii boo bëggee xam fan la sëriñ Tuuba tàngee wax jooju mu ragaate ca yonent bi ba yegg si foofa minal ibrisi ma nga ca téere ba ñuy wooye lil yadaali ñeel imam yadaali imam yadaali moo bind téere ba ñuy wax ibriis di ca rogaatal xam-xam yu bàyyi ko ca yonent ba ba ca moom téere booba nag moo tudd ibriis radiyallahu anhu yal na ko sunu borom gërëm faidatun oxra lii leneen njariñ la anna li yowmil xiyaamati naka bis penc muy bisu yowmal xiyaam mi ata alfi hëwlin dina fa am téeméeri junney tiitaange yu raglu dina am téeméeri junney tiitaange yu raglu kull wahidin minha benn bu nekk ca téeméeri junney tiitaange yooyee asadu min maraaratil mawti moo gën a tar fuuf wextanu ndee benn bu ca téeméeri junney tiis yooyeeg tiitaange yooyee moo gën a wex ndee alfa maratin gën naa wexe wextanu ndee téeméeri junne yoon allahu akbar yan ci yàlla musal sëriñ tubaa nee na fa man haraada an yaqiyahu leehu képp koo xam ne bëgg nga sunu boroom musal la ci tiit ak tiis lu rattu loolee na nga saxoo fukki baat yi ñu lay waaj a wax suba gu nekk ak ngoon gu nekk